bon man mënuma partager le même avis pourquoi parce que justice bi comme nu ma koy waxee toujours la justice n'a jamais changer parce que su man Sonko c'est dommage que toujours il se met en difficulté toute seule di embarquer des des partisans comme ça dans un bateau boo xamante ni ça va toujours su Ousmane Sonko ci tooñ la dëkk man sama mbokk la ci tooñ la dëkk ci tooñ la dëkk kii souligné na fii ay points c'est-à-dire sa communication sa façon de faire toujours day dem ba mettre luy même seul en difficulté ba pare nag mu mu embarquer toute une population pour yooyu ñuy indi c'est des rapaces tous ces procès la fan la ñuy gis ne euh, la justice a été instrumentalisée ou bien même euh, la justice dafay demee benn boor di koy kii ou bien dañ koy xeex ça ça n'existe pas soo xoolee bu baax affaire bi nu mu doxee tous ces procès là Ousmane Sonko s'est mis en difficulté toute seule ba pare nag muy victime. mais affaire bi nu mu doxee aussi ñun dañuy gis ni que arrestation yëpp ci benn côté. vous savez les arrestations c' des arrestations yoo xamante ni c' est justifié ci que nit doo toog di wax lu la ne dans un pays de droit mu toll ni Sénégal ñëpp respecté ko léegi le projet Pastef comme lu mu ko waxee noonu Sénégal da doon jar cent francs actuellement yóbbu nañ ko ci ci ci ci ci ci ci cinquante francs. Mmh. oui ñoom ñii le respect de non parce que vous savez que Pastef c'est un phénomène boo xamante ne ñëw na dérégler la démocratie sénégalaise te war nañ seetaat seen bopp war nañ xoolaat nu ñuy communiquer xoolaat nu ñuy doxalee pour suñu buggee yor réew yor réew mmh. doo doxalee noonu doo doxalee noonu ils communiquent très mal ils leur leader moom moom communication zéro man moom mënuma communication mais moom moom mënul communication sa façon de faire ku war a yor réew kenn soxore soxoreew ko réew mais dafa war a xam nu muy communiquer. d'accord parce que les communications yu indi toujours ces problèmes là moom moo koy indi donc Sénégal ñun ñoo ko bokk dañ ko war a sàmm respect institution yi bañ a vraiment yàpp